Bas, ça va, comment vas-tu Ça va bien Un ah, ñu ngi Salut les gars. Non, partagez les live, partagez les. Ouais. Aliou ka xoolal ma suba kii bi xamul tax demul quoi dafa am problème ak bluetooth bi. asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo seetaan du dem du connecté quoi. jël ko nga dem demal fële nga dem nga xool kooku waaw jaajëf jaajëf waaw nu mu demee di leen ziar gaañ ñi partagé leen waaw leen ko quoi s'en fout tant que yàlla mu ngi ñu may kattan rek dañuy xeex ak ñoom quoi waaye <laughs> Mon copain malien, il a disparu quoi. Euh... Mamoudou Anne, mon copain, il a, disparu quoi. Ça, il respecte pas les Sénégalais quoi. Ah, moi, tu peux donner ton point de vue, mais pour ça que Sénégalais quoi. C'est ce qui me moo taxoon ma am problème la Anafton quoi. ay doomi la ngeen ma ne ko ma bind ko message non bul wax doomi la sénégalais la lappatoo da nga bëgg message bi ñu dugg mu dugg ñu déglu la bu ah mais coco on l'accepte pas non, c'est pas ici. Non, non, non, non, non. Moi, je préfère un saga moko, mais deux sagas sénégalais, je les baille sur mon plateau. Ah non, ça, je ne le fais pas. Je ne suis pas dedans. bon, Ouais. Je ne suis pas dedans, quoi. Moi, je n'insulte pas le peuple malien. Je respecte le peuple malien. Et j'espère que des Sénégalais aussi respectent le peuple malien. Pourquoi accepter que les euh, euh, euh, Maliens rentrent ici pour nous insulter Au nom de quoi Au nom de quel combat Moi, je ne suis pas un hypocrite. On va chier dehors, quoi. Voilà. là, quoi. Donc, à partir, quoi. C'est là ces arguments à faire valoir. Il n'a qu'à les dire aux Maliens. Une bande de pourriture, quoi. C'est un connard. Voilà. C'est tout. waaw jaajëf gagne. Salam di leen nuyu donc euh, panel hein. euh, bonsoir les gars di est il di leen il est quoi di ziar di jox oh, di ñaanal di ko ci quoi di diaspora bi di Italie donc ko tamit sénégalais yalla may leen wér gu yaram gudd fan de ak di ñaanal maladie yalla may leen wér fan ak di ko ñaanal Sénégal yépp yalla Sénégal teg loxo Sénégal sur les vieux corrompus là ñi nga xam ñoo dem naan dañuy ci Sénégal ak ndaw ñi donc Euh, di gërëm donc euh, kilifa diine nga xam ne ñoom ñooy yëkkati seen kàddu saa yu askan bi yuuxoo ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen taxwaay di ñaan yàlla yàlla gën a wéral seen cër gën a dëgëral seen taxawaay ñu continuer tamit ku mel ni imam Dramé ak ñooñu voilà donc euh, di ñaanal tamit patriote yëpp nga xam ne. seen bakkan euh, wadd na ci combat bi ñu nekk ay martyr ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yërëm te xaare leen jana di ñaan blessé yal nañ leen wér may leen wér waaye di yokk sénégalais yi yal na gën a yàlla gën a yokk taxawaay bi dëgëral suñu taxawaay te ba nga xam ne ba nga xam ne combat bi dañ ciy continuer continuer ko parce que war waruñu bàyyi combat la bo xamné du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Pastef xeexu Sénégal la sànq maa ngi ko doon wax ci ben média bi nek en France am Amstrad euh, Amstrad euh, TV le média donc euh, euh, kon nga xamni euh, li ñu wax no yeb deug la ok mhm. euh, donc euh, combat bi dañ ko continuer -hmm. Mhm. a -hmm.

lii daal mooy li nga xam ne euh, moom laa bëgg a wax euh, euh, pour ubbi live bi alors di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp voilà donc ñi dug soobu ci liggéey bi parce que xam ngeen ni fu ne nii <laughs> gars yi cooli cooli li ko waral mooy li nga xam ne moom lañ sumb tàmbale ko te mu tere nelaw am na ñi nga xam ne daf leen tere nelaw may ñëw di di wax sénégalais ne leen euh, xeex bi il faut ñu continuer suy xeex may dellu si waat di wax leen nii hmm, euh, may dellu si di leen wax ni révolution kenn du ko engagé ba pare nga dóor yoox nga dugal masse arrière wala nga rétrogradé on peut comprendre que la plateforme F24 Dieu nañu casse dynamique la dynamique, mais aussi trois jours de combat nous disons le boy coordonnateurs mais le combat continue il faut jamais baisser les bras notre objectif c'est quoi c'est empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat mais empêcher Macky Sall de pouvoir avoir une quelconque augmentation fi kooku mom duñu ko duñ ko nangul kenn mhm. euh, ba taxna di len ci taxaw fi jaamarloo ak euh may wax Sénégal yépp nañu tak suñu tubéy ñuy tok ci fofu di dialoguer ak yooyu yëpp allo oui voilà après mbe directeur après ngay kii D'accord. OK. J'ai réglé une partie avec euh, OK, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. D'accord. Alors, donc, li, euh, li nga li nga je mom mo am moy je suñu démocratie bi liberté d'expression d'un ko persécuter la liberté à lâcher les plumes te loolu musuñu ko am au Sénégal te qui nous ko teg du kenn du yàlla du Yund, Macky Sall la moo le wax ne Sénégal problème Sénégal Le Macky Sall Macky Sall le problème Sénégal parce que la mu instauré ci le politique ci Sénégal

di faral fen di jàppale fen di jéem a faagaagal dëgg réew ma yàqu na mais bu duloon yónni ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yàlla dafa ñuy xalaat barke nabil Moustapha dafa ñuy xalaat bu nu suloon yónni ci yàlla Muhammad non faxas nañu bu yàgg faxas na senegal bu yàgg parce que xool nañ li xew ci seen soi-disant dialogue boobu kii naan gëmmal dóor kii naan boo dóor xoolal nga dëgg ay intervention yu jógee ci ñoom jëm ci Macky mu jógee ci Macky Sall ci ñoom nga am njàngat ba mu téye réew mi euh, fukki at ñaar lu mu doxal ak lan la résultat ak lan la fi ci tolof-tolof dem opinion internationale ni réew mi feebar la donc loolu ndaw ñi ñoo mun a taxaw jeunesse bi maa ngi koy wax di ko waxtaanee ak coordinateur yi dama leen ne jàmbaar dawul dafa wuti doole Macky bu amoon tuuti expérience bu amoon tuuti intuition cartétique Macky bu amoon tuuti intuition cartétique parce que damay dëgg presse bi journaliste Konopi un génie politique mais cuune la quoi ci politique te amul seetlu day tëñëx di dem rek du analyser parce que Macky Sall bu amone gis-gis tout rek mu mous su muusoon non tay sénégalais dañ koy né xolal tu es né après l'indépendance liggéey nga liggéey bu baax jarul ngay dem di togg bitim rew du ci poste xolal ñun ñolay tabaxal kër dëkkal la teral la wala euh, euh, wa tëjal teral la

bëriwul de Nelson Mandela rek moo ko fi am loolu nag pour nga am ko nag day jafe dafay fekk nga béy ko nga ruuj ko nga jëmbat ko nga suqat ko mu meññ nga góob ko Mandela loolu def c'est ce qu'a fait Mandela jafe na de mais dafa wàcc yoon bi te li gën a garaaw li nga xam ne loolu la Sénégalais dund ci ci fukki attack ak ñaar yi Macky Sall yi musu ko amul kenn ku benn régime bu ko mus a dundu fi ko ci benn régime rey assassinat rey c'est-à-dire rey rey boo xam ne d'une manière atroce flagrant délit maa tey maa fi toog maa jaay doole maa neex man maay dañ ma ñaan leen wala leen bëggeen troisième mandat da ngeen may ñaan ah dañ koy ci ñàkk ak teranga gis ngeen arrogance boobu ak insolence boobu ak ñàkk a yar ñàkk teggin ñàkk a yar googu ak ñàkk orma Que euh, euh, euh, Réumi mi Jarna, ñu ak suñu ko fi la quoi détournement ça est là andi politique ethnie Légui même boy Dakar di dem Casamance dañuy contrôler sa portable dañ koy mu violation des données individuelles personnelles nga avons Casamance Dakar nous fouillons sa portable policier Nous la militant Pastef Ousmane ñu déli la ay Kër interpellé oui c'est-à-dire Sénégal le dem pour récupérer c'est tout à fait difficile parce que mag ya waroon taw bi jaaw taxaw ragal yàlla ragal yonent bi rus yàlla ragal seen bàmmee wala taxaw wax dëgg te yàlla tax rek ñooñu ñooy fen mag yooyu ñooy fen tey te boo ko waxee ñu ne ñu ngi xotti xorma mag yi ñooy fen waaw ñooñu ñooy parce que ñemewuñu wax dëgg léegi ban ñom ban ban ban ban enseignement lañu bëgg jeunesse bi jël ci ñom lan mo wara naka nekk euh, ndaw ñi jeune bi alors jeunes yi ñuy toll seen digg nand ci 17 ans 18 ans tollu seen jamono wara mëna tabax seen avenir est-ce que ñooñu danañu bëgg top ñoñu ñooñu toog foofu naan dañuy dialogué ay pervers sexuels comme Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Niass ay sàcc ay lëccu ay ñoo xam dee nañu ba pare ñu Moustapha Niass màgget dé nga xamné ne rek mo fi dess moko déssé ñoo ñu ñooy tok pour wax avenir yi Sénégal ak ndawu Sénégalais ñi ñu entretien ak jeunesse bu inconscient une jeunesse inconsciente qui se suffise à elle-même c'est-à-dire miet yu ñu lay jox junni fi ñaar junni fi dix mille fii tel fi vingt cinq mille fii transformer là en un monstre instrument d'assassinat nga nek nervi à la place ñu war la jox fi nga war a toog bureau fi nga war a liggéey à la place ñu war la jox industrie créer industrie fi nga war a liggéey à la place yoo xam ne yow ndaw yow yaa war a mën a dem teg sa projet ñëw teg ko mu financer ko nga dawal sa projet nekk directeur société nekk investisseur yow mii yow jeune bi mu jël la transformer la nervi def la un un instrument de destruction humaine bon hmm? Il y a des questions, yo xamni, so que poser, je ne te réponds pas. D'abord, <laughs> ça chauffe si panel bi quoi. Ñom ñi ngi sen ping fofu quoi. Alors, mu laaj taxaw jangat ci avenir ëllëgu Sénégal ak le ndaw ñi. Barke mustapha est-ce que sénégalais génie, yi ngi comprendre limay wax famay waxé il faut ngeen am deug deug am deugine meuna xam enjeu actuellement ku ci am part de responsabilité ci kon ku ci nga part c'est-à-dire tey lépp li nga xamoon ni moo waroon a téye réew mi muy socle bi socle bi c'est-à-dire booy tabax fondement booy tabax kër fondement ngay def c'est-à-dire euh, fondement bi les les les les poteaux de commandement poteau central ñi def bâtiment xam nañ li ma les poteaux de commandement ñooñu bu ñu pourrir bu ñu nëbee rek bâtiment bi baaxul te te ci réew mi tey banqaas boobu mooy justice justice justice justice nga xam ne yàlla mayu ci kenn justice justice bu kere nga yomal xiyaam lan mooy xew

2021 tal nañu réew ni ni Macky Sall bu fa démé dana xam conscience am taxawat mu répéter encore même bêtises. mom ak justice mom procureur magistrat tal réew mi dafa c'est-à-dire dafa dem ba sen def internet pour mëna rawalé ay ay new ay c'est extraordinaire di yootu deuxième mandat troisième mandat ñi ne déet mu bàyyi boobu di yootu lan quinquennat ñi ne déet mu changé communication di yootu deuxième deux deux ans may leen ma prolongation match bi prolongation deux ans mais match prolongation deux ans dafay fekk yoo nga def match nul pour mon en prolongation quoi mais yow defuloo match nul Yo défaite nga am victoire dañu la amo ben victoire fi. Ligue fi fini. tax ni lay may prolongation lay guenné ci sen dialogue bobu. kenn du ko fi nangou bonsoir Badi maa ngi nuyu donc le combat là.

ñoo ki bateau Coste pompé dem donc c'est-à-dire ñun il faut que ñu nangu rupture bi il faut que ñu ñeme ko nangu ko accepter ko parce que ci rupture boobu suñu dignité ñun ñun sénégalais africain foofu la nekk ci rupture boobu suñu siggi sur le plan international ci ci la ne ñu le peuple sénégalais 17 millions de sénégalais 100 personnes ñoo bëgg 17 millions de sénégalais en otage téye ay crétin teg leen ci bopp gendarmerie teg ko ci boppu police teg ko ci ministère yi jël armée bi ñu nekk ci bop bi corrompre leen yak leen yàqeet tey justice bi taxat caxate ko pare tok jënd ay armes ñoo tok jël ay jeunes ay jeunes yo xamné heure yi xolal entraîner ba day ni ñay ponkal nga war tok ce bureau entraîner ba naa sol sa costume toog sa bureau di régler say sa entreprise muy dox comme ñom doomu français yi fi Europe yi comme ñu def nonu yow nga war tok ñew ñëw poser bilan fin nga tek sa bilan impôt ñi lay la wala Amadou sa entreprise bi vraiment taxi euh, euh, taxi impôt nga def nga tek ñu pousse le fofu ne ma def une machine de destruction massive c'est-à-dire dama lay transformer en un monstre dama lay Yon ndaw ñi au ma jox nga am nga tekki nga nga jaamu yalla tekki teral say waajur dama lay jël def la transformé monstre assassin reykatu nit rey dama jël jox la fetal nga tiire di rey man sama doom yi ñu ngi kër seen kër toog sama kër toog voilà ma sacc sey milliards jox ko samay doom ñuy daax ba daaxal ma daax gundaandaar ba pare yow ma jox jox la fetal ne la dama nga tiire sa sa mbokk sa morom ndaw mi jeune bi nga xam ne moom yeewu na te yow yeewuloo moom mi ngi yeewu di xeex pour yee la yow di xeex di xeexaale demal nga rey bakuma merda da puta basta fuck you Moy jeunesse bi nga gis ni té nak lima ci jaxal moy may mag gi dañ ci and c' est à mafia bi l' du mal xex lañ am de man de buma ma ci direct bi ma ngi ci xex bi ci portable téléphone bi di wax non di wax quoi di wax quoi non xamna ne si tu la affaire di neex buñu dajé yomal xiyaam be yalla di laaj ko interroger ku nek Sénégal fu mu toll li tax Tu waxu ci lay tu nak waaw got ci la ne got non demal nga play vidéo yi nga xol vidéo voilà ok mais li am pour wax leen mooy danañ ko changer dé non dinañ ko soppi non réew mi changer par force d'échanger. changé dama ci am yàqin dana changé changé de te kep ku fi fat bakkan da nga fay déglu leen wallahi dana ko ni commandement joxe commandement assassiné sénégalais ba paré dem di dossier complot di fen complot euh, euh, euh, terroriste nañu dem ci kalam nga xol dem rek dem rek di donc bu kenn bu la xam nga xam lan la problème organisation xoo xeexu guérilla lañ koy def guérilla c'est-à-dire gis nga même américain yi japonais dañu téegal nday américain ci guérilla xeex guérilla la xaw lañ leen rey guérilla la ñuy xeexe ak ñii man gëmuma politiciens yi nekk fii naan ñu woy marche manifestation F24 yeewi askan bi euh, piti non ndaw jeune bu gëm bopam yaakaar bopam yaakaar réew mi ne yow réew mi yeewu nga xam nga li xew bul gëm benn politicien bul gëm politicien classique mais déglul acteur de la politique un acteur de la politique un koy déglu ñaar ñi ñoo ñoo nekk politicien ak acteur de la politique politicien mooy koo xam dafa jël politique def ko métier fenn sos di dul di di sàcc xale di rey di nga tey nga fal ko léegi deux jours nga gis ko mu tabax immeuble taxaw deux quatre quatre bu gàtt euh, cent millions teg waa commencé di euh, euh, sama mbayaan acteur politique ngay jis nga fal ko mu toog foofu ñaari at caraxam yi mu sol noonu yooyu lay solde mu ngi liggéey di def avancement yow yaa ngi koy yëg yow ñooñu ñooy acteur politique ñun tendance bi ñu war basculer ñun ñoo ko basculer de te diaspora bi bu ñu am rek ci ay mars di tëj di ambassade yi xex non non non action action mo jot ku ci nekk ci ñun fa nga dëkk fexeel ba nga am groupe groupe fukki nit yu dëgër nga xam ñi ay combattants lañu nga def ci ñom ñu organiser def ci ñom ñi lancer système de combat bi nga xam moy dem à la conquête du palais conquête du palais la Guerilla, guerilla, xex guerilla guérilla Laho, le jeu de cache-cache guérilla que le que le dóor mu le le panique am nga installé comment à progresser. progresser. tabaski non na gars Y arrêté la xam ne tabaski mënul am en Sénégal parce que <laughs> euh, y a des morts Sénégal te déggu leen Macky Sall yëkkati kàdduwam de bakan ñu rey Sénégalais yi déggu leen Macky Sall wax yëkkati kàdduwam c'est parce que moom moo rey c'est parce que moom moo assassiné moom Macky Sall c'est parce que moom moo jël suñu xaal dem jënd ay fetal jox ko ñoom Antoine Diome ne leen jox naa leen lépp débrouillez-vous pour pour ngeen rey Sénégalais yi pour man Macky Sall ma mun fi toog ñun ñu mus fi toog parce que bés bu ñu demee ba pouvoir bi la ci ñun ñun ci kaso ngeen dee mais ci kaso bi ngeen di dee. barke nabil Moustapha fii kenn yorul nguur nguur fii kenn yéen doole yor dénkaane la fii yàlla rek a yor nguur yàlla mais yéen dénkaane ngeen am dénkaane yàlla daf koy ne coppet comme Idrissa Seck nu wax gars yi ne na digg da koy ne coppet ba buggee ne coppet Ousmane dañu téegal seen day ngeen arrière attention waaw mais ñun ñun dañuy xeeb ne coppet yàlla ne coppet nguur gi teg ko fële ñaata at nga mobiliser cette institution yëpp nga mobiliser ngeen mobiliser ko Macky Sall ministère yëpp nga mobiliser leen justice bi yëpp nga mobiliser ko mobiliser gendarmerie mobiliser police jël armée mobiliser ko ñoo jël presse bi mobiliser su ma waxee yooyu rek mooy l'axe du mal ñu bokk ci loolu yëpp ci ñaari at ak ay weer départ Lyon arrivé Mouton c'est-à-dire yalla bu leen di duma ndar kam la leen di toroxal ci ben jëmm jooju yëf yi bassesse la def quoi Walfadjri nga dem tëj chaîne c'est-à-dire loolu moy c'est un aveu d'échec c'est un aveu d'échec nga tëj wal fajiri gàcc nga tëj Walfadjri gars yi teg fondation Sénégal yi dugal nga tëj gars yi teg cees cees Thiès waaye Sénégal dañuy xeex cees yoo xanaa xam leen Sénégal Thiès nga teg bene kees gars dañuy waaxu si jóge Koulikoro waaxu si ñoo dugal fa benn dix millions mu dem c'est-à-dire c'est un peuple qui décidé moo tax révolution kenn du ko arrêté waxoon naa leen ko Regardez la composition de Yahweh Askandi. Regardez ceux qui ont, qui, composent la plateforme de, F24. Euh, Je euh, euh, d'accord avec F24. L'histoire me donnera toujours raison. savez parce que mon esprit combatif là, combattant là, mon combattant là mon politique bi ma ko bàyyee yàgg na ko man esprit xeex combattant quoi stratégie xeex man gëmuma eh, discours yi yeeg eh, eh, micro yi ci ginnaaw micro yi way nu condamné ko anam ñoom ñëpp jël nañu avion yi ñu ngi fu di di njàmba njàlle moo tax suma su ma teeloon déglu wax naa ko Ousmane te moom xam na ni man j'ai raison ci moom wax naa ko ko ko du ñii du fi nga dugg noonu du foofu ñii ñëpp dañ lay mbubboo ëpp ay opportunistes yi bon lañ ay hypocrite ñoom ñëpp mooy ñi nekk ci Yewwi Askan Wi ak ñi nekk ci F24 ñoom ñëpp yaa def ci ñoom ay maire def ci ñoom ay député même PDS bi nga xam ne Macky Sall daf ko des déchiqueté yi en lamboo ñi nga lagone ñoom ñëpp comment la ñu nekk ñi deewoon ñëpp da nga leen dekkali ci politique jox leen poste jox leen salaire jox leen liggéey Ousmane ñu ëlbati ko def ko gànnaay di la xeex parce que yéenewuñu la nga tok parce que ñom buñu bo togué ñom dañuy disparaître parce que ñom ay politiciens lañ yow acteur de la politique bokku bokk leen vision bokku leen projet bokku leen gëm-gëm bokku leen gis-gis té yow obstacle nga ci ñom ku ci nekk bu julé yalla mu ngi ñaan yalla way yan yan nañ ko condamné bu mu yalla yan nañu condamné Ousmane Sonko bu mu nekk candidat comme ça ñun ñi dem mais mais yalla yalla yalla yalla yalla ngeen ni wax de yalla ngay waxal de ci yéene waaye waaye boy bi daal yalla nañ ko condamné mu demee il faut attends le gosse là on va l'utiliser quoi comme ça on va l'écarter quoi parce que vraiment kii euh, bu demee arrangé wu ñu ah parce que kii non kii bu yéegee attention ñun moom bu yeboo moom nañu lem suñu kàkkee te abale parce que dañuy xam ne boy bi fi mu ne nii euh, pourtant euh, c'est vrai que fu même l'a craché mon ne <laughs> munu ko ko ne ma quoi bonsoir mm-hmm. mais tu ci xeex bi fu ñu toll ci contexte bi ni ñi a jël responsabilité moy kan moy Pastef Pastef la wax Pastef yéen a war a jël responsabilité Pastef moo war a jël responsabilité te xam nous sommes seul contre tous té ñom la askan bi jox seen baat yaakaaru askanu peuple Sénégal yaakaar bi mi ngi ci pastef la pastef la nek ci parti pastef la nekk yaakaaru ëlëk sénégalais ak jeunesse bi ci pastef la nek ci Ousmane Sonko la. Macky Sall su fogné da fay téy ñom jomay fay ak ñoñu téy di tëj fogné ni mun néewal doolé pastef pastef philosophie la philosophie doctrine philosophie la philosophie pastef esprit la esprit esprit. Parce que mënu côté, c'est mystique mystique c'est mystique Les pastèques di doxalee boy, yi ci terrain comme ay yamb comme ay yamb ils ñu massifier, non mais attendez philosophie philosophie là parce que tout tout Ben, parti mënu ko gis Ousmane Sonko même man suma ma nekkoon candidat Pastef damay jàll Ousmane su ne <laughs> wootal leen da baax damay jàll de du sama du sama du barke sama daayoo moo koy def de déedéet ko booy bi la Ousmane la Ousmane yàlla moo def loolu ci moom lu mu téye mu barke beñe dugub ñëpp dem dóori beñe bi ña do ña liggéey sax jàpp nañ ci beñe dugub bi laajal artisan yi ñëpp daw ci artisan yi c'est des signaux tey bu waxoon dem leen tëgg tëgg tëggal tëggal la ndey pa mbéj Macky Sall ñëppay wuti buntu pale pour tëggal ndey Macky Sall mbéj xanaa xamul loolu Macky Sall xamu leen ko dana leen dóor mbéj ba nga gis ba nga gis bidéo bëccëg c'est-à-dire kooku yàlla ko def moom donc parce que ñoo war a jël seen responsabilités si que fini ay coalition yeuy fi fi ay dëmboot ay dëmboot jeex na waaw yaayam yaayam yaayam ay dëmboot yaay proche jeex na ñetta des traître lañ <laughs> ba tabax ma quoi et ça m'engage man ku mu naxari nga tabax ci jaww joole nga xal géej gi ñetta des ci yeuy askan traître lañ dañuy siñ fang rek seen stratégie lañu teg ba booy bu dugg ci ñu pousse ko ci technique de communication mu tudd euh, euh, euh, Mame Mbaye Niang sàcc boobu gars yi euh, dugg ci créé lu ñuy créé ana Bart doomu xalam bi du fëleel taxaw ba Khalifa Sall di teegal ndeyam pour du nekk candidat fan la daw si du ci Ousmane la ñu langaam tey anamu moo dem aligné ak Macky Sall moo dem aligné ak Macky Sall moom Bart

ñun lañ yow la lañu jotee ak yow pour taal sa lan lan yéen xale yi ngeen téye noonu foofu xale yooyu baat ñi ngeen téye nganaan naan ñu fekk booy ci jardin bi ñoo naan wéy yi euh, euh, euh, wéy ñi dëkkuñu Dakar dëkkuñu kërën kërën petit patin dëkkuñu kaal c'est-à-dire le Casamance ñëwul pour taal kër jàmbur Bart ñi tal moy APR ñom ñi nerviri ñoo bëggoon téegal sa ndey quoi sa kër moo taxit xam nga ko xam nga ko il faut appeler le chat par son nom xam nga ko c'est-à-dire piège bi la Macky Sall dugal nga jël sa téléphone ci këru Macky Sall toog wo Ousmane Sonko ne ko maa ngi fii ci président petit patata la Ousmane mettre na les points sur les i ba pare mu raccroché Macky Sall la la wax mu ne le gosse là est hyper intelligent moo tax defet ngeen di am rek defet rek ku fa xawa normal normal euh qui ñi fa normal mooy Cheikh Cheikh Tidiane euh, deuxième vice-président conseil départemental Ziguinchor ak mal euh, euh, Déthié Déthié Fall mais le reste ñom ñepp Ahmed Aïdara woo Khalifa Salwo, woo Barthélemy Dias woo Habib Sy ak ay consort ñu fa nek ñepp ay traître lañ dara dara dara parce que gis nañu booy bi moy diri mais boy bi bu mu koy def daf ko def pour sénégalais def ko Ousmane a compris Vous leen dégluwee Ousmane mu man que def moma intéressé lu keneen di def bu intéressé mais damay def rek ba bu ñu sëqee bu ñu rek du sëgg te Macky Sall tey boo ko mille milliards nga ko euh, euh, ñi andi la Ousmane Sonko da fay noo andi leen ma Ousmane Sonko ma waxtan ak mom barke Nabil Mustafa lool rek moy rêve am quoi c'est-à-dire mon lu ko metti moy <laughs> nuko boy bi weddee quoi hypnotiser ko quoi wedd weddu ko moko ko sut ci xam-xam moko ko am charismatique charisme moko ko ëpp charisme ëpp ko xam-xam moko ko ëpp jàng moo ko il est dix mille fois plus intelligent que Macky Sall Beaucoup de techniques de communication beaucoup projets, beaucoup de visions, beaucoup de dégoûtés, Beaucoup de ci beaucoup de ci sur tous les plans la ko Ça yu yëkkatee vous ci il rek a le ko daanu mu am defet te ba a ci de parallèle de Il a ci a Il li def rek mu ngi de dinaa ci ñëw maa ngi xaar damay xaar mu ñor rek mais dama leen di wax ni rek c'est pas l'appel bu leen ko def noppalu leen yan yan APR laa wax surtout farbangom ak Marème Faye Sall Farba Faisal, Marème Faye li ngeen di def di ruubandaat këriñ bu leen sonal seen bopp maa leen ko waxaat fii du xar fa foofu mooy téye Ousmane sénégalais du xar fa foofu mën a li ngeen sotti ci lande guerre bi yëpp téegal nañ dem wax naa leen ko fi je la l'avais dit te yéen xam ngeen ni li ma leen di wax am na barke Nabil Moustapha barke alquran karim mun leen ci dara donc ñooñu plateforme bobu nga ñëw ci ñi nekk ci yeewi as euh, euh, euh, plateforme comment dirais-je FNK mais c'est le même type, sauf ñi fa rax moy Bougane nga xam mom mo moo jouer son cinéma la keroog bu ñuy lancé Yewwi Askan bi Hassan Thierno Alsan Sall Mamadou Ibra euh, le Premier ministre là, Abdoulaye, Malikaku, et consorts, ñoom Khalifa Sal, ñoom Barth ñooñu ñëpp c'est les mêmes ennemis de Ousmane non, c'est-à-dire moi t'as passé de war jël responsabilité depuis le maa je koy wax jël responsabilité parce que sénégalais yéen lañu andal sénégalais yéen lañu gëm sénégalais yéen lañu wul wóolu jël leen seen responsabilité ngeen juutu ngeen jënd ñu dóor xeex bi ñun xex moo ñu jig Pastef ñun dañuy juddoo rek commencé xeex c'est-à-dire Pastef dafa judd rek di xex déggu leen ma de Pastef dafa judd rek xex waaw judd maternité rek yu wee rek xex kurpe ñu commencé dal ñun loolu mooy suñu doole dañoo judd rek oyee rek kur kurpe ñu commencé dal ñu ne lan lan moo judd kan la judd Pastef la nu mu góor la nu mu tudd Pastef kurpe ñu commencé dal mais sa femmes yeb jël nañ ay direct ay crochet sa femmes ñom ñep jël nañ ay crochet ministre de l'intérieur bala muy signé bala ñu ko jox récépissé bi euh, euh doon nañ ko ay crochet ay épicurie ba mu man ni Pastef dafa judd rek xeex ñun loolu mooy loolu moo loolu nag moo sonal gaay ñom ñoom journaliste yeeg te Walf Fadjri yeeg Euh, pardon waa TFM ak ak ñoom Macky Sall c'est-à-dire Macky Sall <laughs> Sall c'est-à-dire dafa dafa dafa gis loo xam ne ñoom dañuy gis loo xam ne <laughs> daf la jommal quoi cest à moom dafa foog ne day ñëw rek jël benn chicot rek yëkkati euh, euh, chemise gars yi di caw seen taat yi comme nu mu ko defee Karim Wade def ko xalifa sal ñoo toog nag quoi ku nekk ku àndul ci moom rek troisième mandat mu kut mais ba mu ñëwee ba mu laal ñu ne ko laal nga laalaake bañ ko dumee dafa daw ci suuf lal bi ni gu taw te taxaw euh, way dëgg naa leen comprendre mu milliards jox ko gars des ko ci ay forum de l'emploi des jeunes mu defaat ko ñu duba da ngay defaat ñu duba il va pas se laisser faire de et nous n'allons pas nous laisser faire ñi wax les jeunes là fii bu leen kenn nax bu len kenn djema a traumatiser bu leen kenn djema domté yalla xamna ni yéen tooñu len rayu len sàccu len alal réew ci deug ngeen nek dañuy xex xeex yonent yàlla Muhammad ba mu joté yalla daf ko ne eh jëlal nga fetal nga dem xeex yi deug gis ngeen ñi taxaw fi ak seen mbaxane seen copati seen caayi neub yoyu la taxaw fi di ak seen mbaxane deug yoyu di jéem a ratate ñoom ñëpp naa fekk tous des hypocrites kenn du tu wax dëgg c'est extraordinaire kenn du ci wax dëgg ñoom ñëpp toog mel ni ay euh, euh, euh, comment dire coalition golo toog rek di leen Macky Sall ni xuy yéen nga c'est-à-dire boo leen xoolee ça, yow da ngay Ça, da ngay rus ci biir quoi tu as honte tu as pitié de ces gens-là te ka daan ne sëriñ bi waxal ci wàdd bu mu ma tëj dama ragal kaso kooku moo toog tey dinaa ni di jaayu quoi naan way manda mandat boo leen ko bëggee da ngeen may euh, xawma naka neexal euh, da ngeen euh, da ngeen koy kii te pourtant moom bu ko bu ko wàdd ne ho dafa daw laxu ci sëriñ bi ne ko sëriñ bi dama ragal kaso wax ko bu mu ma tëj c'est extraordinaire Hmm? tay fa la toll alors réew mi nag jeunes yi ñoo ko moom xale yi ñu yenn moom réew ñu gis nga ñun ñii ñun pare nañu de man moom chaque fois ma wax ko quoi man moom fu mu ne ni moom pare naa quoi leneen li ma fi nekk di këram këram pour yenn xeex nii bénéfice laay xeex ak yéen de man pare naa de man benn tànk bi mi ngi fële quoi dama leen wax lu leer rek dama gars yi wax ñu naan la saf la fii dee bañ dee bëgg a dee dund dee ba dee dee moom day ñëw bu yeboo moom chaque fois foo nekk na nga ko calculer quoi kon yéen ndaw ñi nga am 17 ans 18 ans 20 ans yéen ngeen tollu seen digg ndënd ñun ñi suñu ratatatate bi yépp ñu ñuy ratatate yéen yéen la xéxal xeexal yéen suñu mag yi bu ko defoon kon ñun heure yi euh euh ñun heure yi kon heure yi waxtu bi duñu ki quoi voilà ku bëgg a ngeen woote ah. voilà donc euh, waaw donc c'est ça aujourd'hui le contexte que nous vivons au Sénégal chers Africains c'est-à-dire à la tête de ce pays, tout ce que vous avez vu là, les images qui parlent là, nous avons un apprenti dictateur à la tête du Sénégal, un arriviste, un accidenté de l'histoire politique, un incompétent. Devant l'escalade de son incompétence et de son échec, il tue sans argument. C'est Macky Il a détruit toutes les valeurs. Nos institutions se mises à genoux. transformer les, notables en perruquiers, quoi. C'est-à-dire, il les a tous détruits, quoi. C'est-à-dire, euh, il a privilégié la manchange et la corruption. Tous corrompus. Parce que tout simplement, il, a, il a confondu le pays pour sa propriété, quoi. cest c'est extraordinaire. C'est de plus honnête. Moi, je vous ai dit que lui, il n'est pas mon chef d'État. Il n'est pas mon président. Parce que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai jamais voté pour Watt parce que je ne crois pas. Ça, attention, il faut être clair. Alors, lui, euh, empereur ou bien royaume, lui, il est en train de construire une dynastie. Faisal. Regardez comment, comment il a transformé nos, responsables de la police en, une machine de mensonges. Tous des menteurs. Mais, il il est fort. Hein? C'est-à-dire, quelque part, il faut le remercier. Il est très fort. C'est-à-dire, il nous a déniché tous les hypocrites qui sont au Sénégal. Dans tous les secteurs confondus. Macky Sall a pu démasquer tous les hypocrites, les guignols, les menteurs. Macky Sall, il a cette force-là. Alors, la mention spéciale à Macky Sall parce que tu nous as aidé à découvrir des hypocrites comme vous, des menteurs. C'est-à-dire, comment je vois un, officier de la police qui, qui, qui, ment, quoi C'est instantané, même pas 30 minutes, les patriotes, les Sénégalais lui <laughs> amènent les images là. Taf Après, il va dire à sa femme, là, sa femme là, je sais que leurs femmes là, leurs enfants là, vont dire que non. Le, vieux là, il s'est vraiment le vieux là menti, quoi. Oui, vraiment. Euh, ce que le vieux a dit là, ça ne colle pas, quoi, franchement. Mais papa, tu as fait une erreur, quoi. Regarde, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien quoi, mais comment est-ce que vous pouvez mentir comme ça à ce niveau-là Les images parlent. « 12 ans, 38 000 milliards. de budget. Une dette de plus de 14 000 milliards. 24,5 le chômage. Après, on me dit que oui, Macky Sall, oui, il a travaillé, il a développé le Sénégal. Oui, petit petit, petit. Mais attends, attends, si les Sénégalais là, si, posez-vous la question, pourquoi cette violence-là, cette agressivité de Macky Sall C'est parce qu'il sait que les Sénégalais ont, ont compris qu'il n'a pas travaillé. Et je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais. Lorsque ce gars-là est allé pour battre la campagne seule, je vous ai dit, faites attention. Il ne faut pas élire Macky Sall. Parce qu'il est allé voter sans carte d'identité. C'est un pyromane, un ministre, un ministre pyromane. C'est un nervi. Il est allé voter sans carte d'identité. Attention, ce gars-là est dangereux. Il ne faut pas voter pour lui. <laughs> Vous n'avez pas compris. Alors aujourd'hui, ça est là. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Aujourd'hui, quiconque avait voté 100% pour Macky les 95% ont pris bagage. Quand tu vois je regrette. Son fils aîné, ses deux fils, sont devenus milliardaires. Sa femme milliardaire, lui Macky milliardaire, son beau-frère milliardaire, son autre frère milliardaire, tout qui tourne autour, qui rentre autour de... lui, Même Senghir est devenu milliardaire. Personne n'en parle. Hein. Les malades défilent de gauche à droite. Tous corrompus. Alors, c'est l'avenir de ce pays-là. Notre pétrole-là. Notre gaz-là. Macky c'est ce qui l'empêche de dormir. C'est-à-dire, il faut que vous me repoussiez deux ans. Maintenant, il, il n'osait pas parler du troisième mandat. Il est là. Il a envoyé ses chiens sur les plateaux de télévision parler, nous casser les couilles là. Troisième mandat, euh, petit patin, la constitution fille, euh, euh, je ne sais pas, interprétation, ça n'a pas marché. Ils ont laissé le mot de troisième mandat. Alors, paf, ils accaparent. euh, quinquennat, quinquennat, quinquennat. Quinquennat, quinquennat, les Sénégalais les ont dit, oh, laissez tomber, quinquennat, ça ne marche pas. Maintenant, lui, Macky Sall, qu'est-ce qu'il parle Non, donnez-moi deux ans. Maintenant, il demande. Macky Sall qui, disait non, un troisième mandat, si vous voulez, un troisième mandat. Mais il faut me le demander, moi. <laughs> C'est ce monsieur-là, ce gars-là qui revient pour nous dire, oui, non, donnez-moi deux mandats, deux ans. Pourquoi Deux ans pour qu'il continue à assassiner les Sénégalais. Deux ans pour continuer à piller nos ressources naturelles. Deux ans pour qu'il continue, lui et son équipe, sa famille, s'enrichir sur le dos du peuple sénégalais. Deux ans pour qu'il continue à détruire nos institutions. Deux ans pour qu'il continue à assassiner le peuple sénégalais. Deux ans qu'il continue à nous persécuter. Non, non. Deux ans, non, non. Même si tu as un bon bilan, deux ans, c'est fini. Respectons la mémoire de la Constitution, la loi, il faut le respecter. C'est deux ans, deux ans. Hop, allez, deux mandats, deux mandats. Tu prends la tangente. Et c'est ça la vérité. Alors, l'avenir de cette jeunesse-là, <laughs> il ne faut pas le laisser, il faut pas le confier à ces vieux-là. C'est des cadavres ambulants. Tous ces vieux que vous voyez là, c'est des cadavres ambulants. Ça, je vous le dis, c'est des cadavres ambulants. Ils ont fini leur là. C'est des cadavres ambulants. N'acceptez pas que ces cadavres ambulants-là puissent négocier pour votre avenir. Non, ils ont fini. Un cadavre ambulant qui négocie pour l'avenir d'une jeunesse qui est là. Oui, oui, les jeunes là, pour le développement de ces jeunes du Sénégal, pour les jeunes là, voilà, moi qui ai le cadavre ambulant, je suis là, je vais négocier. Vous négociez pour, au nom de quoi Au nom de qui Paco, qu'est-ce que tu veux dire là Insister sur quoi hmm? Il y a des gens qui me disent, oui, Ousmane est parti à bord d'un Pajero là, avec les forces. Non, mais arrêtez quoi. Arrêtez quoi. Faut pas, faut pas jouer avec les gens quoi. Hein? C'est réel. Voilà, bienvenue, Gérald le problème. Hein? Ma supprimer les bureaux de vote de Touba. C'est ça l'information. Au nom de quelle démocratie faut-il supprimer les bureaux de vote de Touba Au nom de quelle politique Touba fait partie du Sénégal. Personne n'a le droit de supprimer les bureaux de vote de Touba. Attention, gagne. Si vous daanu ci ci piège boobu ah, ay Touba bureau ay citoyens ñoo nekk Touba ay sénégalais dañuy am droit pour voter bu ñu jël affaire diine bu ko un ak affaire politique donte yonent yàlla Muhammad sallallahu politique mais interdire waa Touba voter parce que ñu ne xalif bi moo jëndee ndigal boobu ngeen

suñu impôt suñu xaalis la investir Touba suñu moonin mooy dugg Touba kenn du nouveau politique mais vote vote vote droit la droit sañ sañ-sañu doomu la Yalla wax kuti ci karim l'islam yonent bi deggal na vote sañ-sañu nit ça n'a rien à voir avec... Euh, c'est-à-dire gis ngeen li nekk di xew ni nañu wax dëgg ku waxul dëgg wax fen amuñu droit nañu waxante dëgg yàlla dëgg rek la bëgg amuñu droit bu ko waxee amul droit ah ñi ñii dee ñi ñuy rey est-ce que moom yëkkati na kàddoom mu wax ñii dee dëgg naa day ne moom yëgul xamul ko xaw ma ci dara mais wal fajir bu ñu tey mu ne xaw ma koon ah boobu moo xamu ko quoi c'est-à-dire fii la maam Dabakh Malick moo taxit même ay doomu maam Dabakh Malick bokkuñu taxawaay ak nii barke Nabil Moustapha c'est-à-dire nit da wax dëgg nga juboo ko yàlla buur bi boo dee sa bàmmeel boo tëddee tàlli ñoret bu dul dëgg de yéen a xam mais bu dee dëgg la moom amuñu ci droit amuñu ci droit ça moom dama la ko muy feneen ak feneen bu dee dëgg droit amul droit day violer droit seen citoyen sénégalais yi day violer droit citoyen sénégalais yi bu boobaa yaa ngi violer droit jaami yaa ngi violer seen ak seen yelleef nañu waxante dëgg déedéet déedéet d'accord bu dee loolu moo am d'accord ñu parce que kuy xeex injustice da nga koy xeex bi mu mat sëkk fii ku fi nekk ku nekk yàlla nga yaakaar ku fi dee ak sa bàmmeel kuy xeex dëgg da ngay xeex pour dëgg taxaw dëgg mu jàllkat yi nga wax ko dëgg amuñ si droit muy Touba muy Tiwaawoon muy Laayeen mu fépp citoyen bi am na droit voter ci réewam

bu bu ñaawteef amee mu yëkkati kàdduwam bu lu baax taxawee mu taxaw taxaw tabax pour lu baax kon ne me parle pas de de tariha moi je rentre plus dans ce contexte de tarixa la yàgg naa leen wax ni man xoolal gëmuma ñooñu man kenn laa am wasi la te kooku la ma mus a wax loolu laa gëm amu mu a wax mu dugg sama nopp fii une se pet moom gor gi dama koy fekk fii fii euh, gël tapé fii ci këram gii ak ba ma koy fekk euh, euh, ba ma koy fekk Euh, fële euh, que fa muy féexulee fële nu mu tuddee ci waay euh, Jaksaaw ak ci Kër Maodo ginnaaw aéroport ji nga kàddu yu may wax ak moo ko fekk tuwaawoon kàddu yu may wax yàlla yonent bi say ñaari waa jur Abdou sa wasila même man man man Abdou man boo ma gisee may def lu loo xam ne naka sa dul teguwul ci yoon wax ma nii maam li ngay def noonu teguwul ci yoon waaw man moom laa gëm barke non c'est-à-dire wax ma Abdou wax ma nii moom góor googu laa xam man góor googu laa gëm moom moom moom <laughs> moo tax dara mënul fëkk suma bët barke nabil ma kenn mënul fees suma bët waaw man man man man nga gis ma maa ngi tegu ci yoon boo xam ne yoon bi baaxul tabaxul deful ne ma maam bul dem fii nga jëm baaxul bul xool ni mag la xoolal ci mais góor googu extraordinaire noo il est il extraordinaire moo tax lépp lu mu jur rek tànkam li ñuy jël xool xoolal xoolal Habib xool leen doomam yi xool leen doomam yi photocopie copie collé xool leen rek oyof nag toll barke nabil Moustapha billahi wal kitab du seen morom moo leen man ñoom ñëpp billahi wal kitab kooku laa gëm te la ma xol waxuma sëriñ de wasi la paa bi non góor googu perte la ci Sénégal tey boo bëggoon def église <laughs> église Touba non le monde s'écroule mais pourtant Tivaouane am na fa église <laughs> am na fa lan lay yàq mbir mi mboot yi du foofu déedéet góor googu kenn du moom oyof nag. man mom dama am chance bobo quoi <laughs> Bilahi. ay discours comme tey la wax tey tey c'est-à-dire l'histoire c'est-à-dire lui il continue toujours à interpréter l'histoire le vieux là c'est-à-dire fii a dit di touki. àdduna di tout da comme tey discours bu mu def Touba anam dem leen laaj ci ne laam gars yi bënn seen nopp yi di jooy bënn seen bët yi di jooy lan la leen wax lan lu mu leen wax ci jumaa jooju keroog lu mu leen wax génération yi bëri xam naa ne xamuñu ko ni maam Abdou ba mu demee Touba ñi jiite ko gars julli ba pare mu def fa discours waxtaan la mu leen wax wax boobu rek rek rek rek rek dem leen laaj ki ne laam

bu dee li ñuy wax ni c'est avéré du yoon point de vue quoi voilà les ku mu naqare nga dem quoi ça c'est ton problème on revient maintenant ci suñu combat bi Pastef na jël responsabilité F24 bi na nga ci jënd B78 jënd ci parce que ñëpp ñi nekk F24 ak yow ak say leader jël leen seen takk leen seen fit ngeen jël seen responsabilité ca

loolu mooy dëgg ñun ñëpp ay citoyen lañu quoi ñun ñëpp ay citoyen lañu ma wax leen ko teel te ngeen bàyyi xel yéen ñi nga xam ne yéenay tukki di dem Ziguinchor di ñëw wala Casamance ñëw seen téléphone portable ngeen mooy ko C'est ça. Jack muyu mani sankere ah wala kooku du futti kaf parce que wan dee jaay jujuk wan dee jaay euh, man lo bu mati muy kaña kajaburu nga ko Casamance Dakar ou bien Dakar Casamance mbi ji kënu supportable solo parce que kooku boy kan vérification bandukouken, koutouk y a des messages de Pastef ou bien des panels là dans votre portable là, Pankoussof. Il faut que ma dise que te jack. Dia fouti ka fofu man fudjum la, ala be fouti de par force pendant la candidat Ousmane. Ban kamengi di le politicien kanya yewi askan di F24. Ku dout kay rebe Ousmane di Pastef. Ko ko kep kep kep kep kep Ousmane a éliminé Ousmane parce que Ousmane nan la ko la ko obstacle du kila. Koku Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, les Malik Gakou, tout est consort Kenya, tout comme du Kenya. Moi, quand est passé, qu'on a les responsabilités. suis Parce que Essouké, brum, brum, passif. Djadji Djouk j'ai Maman persécuté les militants de PASSEF et Nakul. On a moment. Parce que sondage, c'est un Premier tour, Ousmane. Mais nane dialogue. Inki troisième mandat. Nama mani natango na nabaj. Nya kuka troisième mandat. Dukungaru na wa quinquennat. nki kenke na ikela kujejo kujejo kuma nyile jaw duk nki kuruwa makisa nane sabari kuban kata wula lo simit siga ba prolongation o bese no prolongation ti wama o ene maima hmm? e pourtant ni dandala wul tadi ire gure gure gele wure nenol futika fofu ba jewu surtout muy kati casamance isankeno sanke fo de ku jangotak ni ragorek mate futika fofu ba jewu ji pare sumu tu panu tika panutika que jank de ngayen tata de e makisal o oh, sumo su jujuk ma djou meno makisal le carte de makisal awɓe tep e golé manu tek la lakale de ñaago jujuki kono kuseka ka jawña dakar ki kokutan manko kani babwa, ende brasselé ko tan e, e, e bo wa eh? lekula kusinde yoli hmm? donc lukoma futik fa mbukana ko ñakaranya le futik nous manger. fati intérêt yati usma yati sénégal ñatate bajut elan bolu mukude ñaka temporaire kuri il faut man juma man temporaire de Macky quoi foi no que babu des discours là c'est non non 5 kasankana mais problème est fang entre ola ola kati kenor ola damongola nani dit. kasankana re jat jat jika law situation ngata o malake de ya muy joju man jondi ka juro di makissal muy nous Il faut que moi nous euh, manions. Madame Nicole, bi mesdames. Moi, je parie que aussi parce que faut que nous nous manyan ni balal Nous nous droit parce que métal da la ko kelo ñi nous ñi nous ka bouté ka fara faut ka nous kandindi ay jam ala fero be kanyi woy dialogue dialogue be abe wulu abe lola nyami jang sanju fula ya kafuje abe wolo nyino la andu ni nyamati yake funyi sanju fula so jang <laughs> abe senegal be jo burbur la le nga o faali ba ama abal jo be burbur la nying nying woto janda be mol jo burbur la nga jo burbur ay tënku parce que man kana so ni ma burbura buka tënku je ya burbura ay kuma kilingo je ma atul munu be sigen so wala dakar na kata casamance wala dakar ala portable ala be effacé e kana whatsapp dj Je kana facebook dj e kana hani trace trace dj bare te sito parce que kelo

aliŋolo de imam pat imam muru koma de ama de kalabante la parce nyanta yele responsabilité ta ye coalition te yewi askan bi F24 parce que itol itol itol la fi Ousmane Sonko ye candidat parce que yalo na kete candidat abe itol be bouté le itol ngani yo Ousmane Sonko man nyanna candidat biu toñam be wala kanko latina passé bi ñanté len responsabilité fanan talalé wolum toñati négociation ti jang diamu côté ti jang fana manke ka lo ye fan toña yandi ye lo na lo nga kele nga troisième vague organisé fo makissal nga bay ay bu jang

ñu kenn fàtt ci ay ay ay explication fii ay détails yu bëri non non non moom na def lu muy def ñun ñu def lu ñuy def ñu kenn divertir ñoom ñu ngi seen nas ñu ngi toujours ñu ngi dëkk di nas seen pexe rek ñoom ñu ngi ci loolu quoi façon pexe bu nekk pexe nañ ko mais ñu ngi fii bu sénégalais nango fi ba ñu nelawal leen fi Macky Sall prolongation deux deux de deux ans <laughs> daf def dom. bu ngeen xam ko donc il faut que nous organisions ñu organiser combat bi ñi ngi ci donc euh, merci partagez les euh, di wax responsable Pastef de jël responsabilités. seen responsabilité te micro yi conférence de presse doyna. doy ngir conférence de presse vous ngeen jënd waaw bàyyi conférence de presse vous ngeen te nak nervir yi il faut que ñu rëbb leen nervir yi day identifier identifier len. il faut ñu organiser wu de xam nga ñom dañu am ay nervir

دي لا عمل لما عندي وخوة اللي انساك بلينجرين نفسي بيشو الله